dugg kenn du dugg maa teeku ragal ah man maa yor xaalis bi kër gi maa nii maa la. waaw léegi bu dimanche dina leen bloqué. dimanche dina leen bloqué bloqué boo xam ne sax bi mu waxee loolu dugal ay nit xoolal enregistrement yi ñoom ñëpp la enregistré ñu ngi nii audio yi bari allah ji fàmm ñoom ñëpp la enregistré dugal ay nit ñuy wax yoo xam ne dama rus sama la dama tëb ci rek mu am gàcce di wax wax ñu doy waar ñu doy waar nga ni Serigne Ndiaye seen noonu seen seen papa ak Serigne Ndiaye ñoroon ànd fii El Hadj Ndiaye nekk benn nekkaat doomam di noonu ñu war a xool ci El Hadj Diagne xool ci El Hadj Diagne dugg ci rajo di wax loo xamante ne léegi mosu waxoon buñ Serigne Ndiaye loolu ñu la gisee ci benn bi ñu la for woon bu ñu gisee dina nuyu dina kafa ne ndaka say dafa ñaaw waaye ah? léegi boo ko a dara sax mais man comité directeur damaa dugal rek mais xanaa man bala bala ñu ma voté ah campagne lii man bokk naa commune de Dóor ñu mais may ñu ma ma campagne ñu ne ma doo campagne mais loolu fan la amee ah waxtaan wax dëgg ca la am na joo xam ne baaxul nit bul foqalee nit bul bul bul topp sa bànneex ko def loo xam waru ko def yow Sadio 2018 bi mu doogee fii di muñ Cheikh Ibrahima Sow rek lu nekk laa xas si Ibrahima Sow ñu ne nañ bàyyi Sadio Diallo mi ngi boobu Toufa euh, euh, mi ngi sol tenue militaire ni ma nañ ko jàppale mu ne léegi nañ ko bàyyi léegi après quatre ans Serigne mu nekk waaye yow wax gi neex gi mooy Serigne Ndiaye bokkul élection bi fi am daal ko koy xam dañu xaar ba dimanche ñu xam ne lépp dëgg la ndax suñ bamba élection du am dañ bàyyi ba dimanche bu dimanche ñu xam ne lépp côté bu ñu paree rek ñun côté pare nañ côté bu gën a ñoom ñoom fañu autorisation ñëpp a ko bokk fii ñun ñëpp a ko bokk association bi ñun ñëpp a ko bokk ay traite. association bi xam nga lan moo tax association ñuy dugg indi indi ko ci Sénégal amee. kër yaayu Ami Mbaye kër yaayu Jabaru Wuri fa lañ ko ubbi. waaw de xaar du foofu du foofu defal naa du foofu. non non defal naa defal non non xaaral du foofu defal naa boobu dañ ko doon waxtaan. boobu ñun ñoo nekk ci dëkk bii di dawal ay taxi ñun ñoo fi nekk di dawal ñuy rey suñu dëkk ak bëccëg ñoom Xaadim Mbaye ñoo dëkk fële ak grand bàcc Mbengue am na ñoo leen ñu décédé boobu ñun ñu ngi def two forty eight Lenox Avenue cent vingt trois ñu ñëw suñu kër ñi as sénégalais dañuy taxawal association fii ci dëkk bi ñu wax ko sama papa ñu ñu ngi ne la cinq dollars lañ doon demandé mille neuf cent quatre vingt neuf yéen ñii ku ko gis na pàcc sax naa. ah sëñ Moutala sëñ Moutala ñëw ci ci seen nawet te la ñu ñi nekk xool li ci dëkk ko ci David Dingat mooy blague bi quatre ans boobu man maa ngi fi gaaw tax barki Seexul Xadim xale nekk xale bu ndaw boobu ba léegi ñoom muy 30 ans ñu nekk ci dëkk bi am jàmm ak salaam mosu ñu am benn problème saa yu ñoo bëgg a indi lu mel nii. ba ba sama jotee xam nga lu yomb rek day def sa naturel. sama jotee naan ah naan ah mu la maye lu yomb rek. naan ah ma daal di mel yaa ko moom quoi yaa ko moom parce que négociation yi amul. waaw bàyyi. waaw ñu bàyyi loolu loolu loolu moo loolu moo indi lépp loolu moo indi. waaye l'argent contribuable loolu moo indi problème. yéen l'argent contribuable benn nit mënu ko lekk. l'argent ñëpp a ko bokk ñëpp bokk nit mënu ko lekk. ba ci Alaaji Fallou Mbacke fii moom xaw ma kan mais benn président doon si dugg. te te te te te élection sénégalais te neexul sénégalais te bala ngaa xam ne loolu ñu wax nag ngeen dem cent trente def ko seen lépp boo leen ñëwee fii ngeen xam fii Sénégal yëpp dinañ leen woo tey woo leen demee. you don't give a damn. élection moo dul am fii ci New York. yow kii Sadio. you don't care. élection bi am te bala ñuy xam ne élection du fi am nañu xaar ba suuf ba ñu xam ne élection come on guys forward sir. jaajëf fan nga dem rek. come on guys forward. office bi kay moom ñoom ñoo ko moom ñoom ah. membre yi. ñoom membre yi kay barki suñu Bamba ñoo ko moom ñoom ñoo ñoom ñoo ko. ñi ñoom ñoo tënk station bi yow dañ lay liggéeyaloo rek lay liggéeyaloo. waaw waaw non fii mënoo koo teg. mënoo koo teg waaw fii mënoo koo teg waaw fii mënoo koo teg waaw fii mënoo koo teg waaw fii mënoo koo teg. pour xamal la rek. loolu loolu xam nga more happen there. Which one get them get them. He I use up your your man so ne could die. No we can do it. Parce que ni mafia la ñor. Voilà, mafia la ñor. Sama sama Ah, da ngay dem ba tey. Gel bi is over. Fi élection bu am fi. Dama ko, dama ko, dama ko.